rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk téléspectateurs yi seetaan seen émission jotaay diine fii ci Prestige Thiès ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane suñu noon bu mag boobu ñi ngi tàmbali suñu wax ci turu borom bi subhanahu wa borom bi ñu may kàttan may ñu wër ba ñu mën a dellusiwaat fii ci suñu émission boobu di jotaay diine ñu ngi koy sant sant gu amul àpp ñu ngi julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ay àndandoom di ñaanal suñu waay yi yàlla teeral leen malaanu yërmande eh, di ñaanal suñu malade yi ci kër yeeg hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp yëkkati leen bañ a tëral kenn di ñaanal suñu mbokk yi ci prison yi yàlla génne leen delloo si leen ci seen famille bañ a dugal kenn ñu ngi ñaan yàlla mu def jàmm ci réew bi réew mi def ko ci àddina bi yëpp euh, di leen nuyu yéen ñëpp yéen ñi seetaan seen émission fii ci Prestige Thiès di nuyu suñu techniciens yi euh, di dalal suñu gan gi ñu am tey suñu gan gu mag gi di euh, soxna Amy Thiam ngeen baaxoo ko gis fii ci suñu émission jotaay diine muy koo xamante ni wàllam bi mu war a bay ci waar wi mu ngi ciy def kem na yàlla na ko yàlla fay yiw ñu koy invité ay yoon muy ñëw jéego yi wi ñewé nak ak dellu bi yépp yàlla nako ko yàlla defal ay tiyaba yàlla fay ko limuy liggé ci yoon bi euh sayda Ami ñu ngi lay nuyu bu baax dila dalal ci suñu émission jotaay diine ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi waaw Seyda aouzu billahi minash asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alwahid alahad ahad alfard alsamad alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad أحمده واستغفره واستعينه واستهديه وأصلي وأسلم على خير الخلق سيد الوجود صلى الله عليه وسلم خير العنام وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السيدة yi ginnaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala jël ci say ruuj sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbokk yëpp macha allah di leen balu àq di leen balu àq seda di jiital nuyo bi di la ci jiital yow mi toog macha allah di la ñaanal yàlla macha allah di la wax al juma al mubarak macha allah bi itam mi ngi law ba ci borom kër gi diko tek ci loxom mu séddalal ñu ko bépp membre fu nek wante itam naka non non lañu démé comme ni nga waxé waxee rek dem ci hôpital set ñi nga xamante dañu fébar yalla yalla fëgg seen bop wante itam ñi nga xam dañu nek ci ay talaf talaf ba ci fett leen ginnaaw yal na fa yalla jël ci seen sago macha allah sayda di la wax ni kontaan nañ ci yow macha allah ci invitation bi di la ñaanal yàlla macha allah yàlla na nga barkeel bu baax a baax. amiin yaa rabbi amiin la xayraan Seyda ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, di la dalal ci sa émission bi nga xamante ni euh, ñëw nga fi ay yoon. muy mm. euh, jotaay diine fii ci Prestige Thiès. Mm. ñu ngi lay indil tey thème boo xamante ni ñëw na ci waxtoom. macha ndax Seyda jamono ji ñu toll. Mm. yaakaar naa ñuy war dem màkk ñëpp ñu ngi ci waajtaay ñu ngi ci waajtaay fi mu toll nii ci jamono jii eh, ku nekk nag yaa ngi koy préparé préparation yoo xamante ni yu rëy rëy la xaw ma nag ndax niñ koy préparé noonu diine la wala mbumbaay la wala xam naa boo diggee ci sa biir wax di nga ñu ko leeralal bu baax eh, jamono jii tamit Eh, yaakaar naa ni beneen événement ngi ñu dëgmal muy tabaski muy ñaari événement yoo xam ni dañoo euh, am relation yoo xamante ni xëy na mu feeñ ci biir euh, wax ji eh, su ko defee ñun li ñuy li ñuy njëkk a laaj rek say mooy tabaski euh, mooy aj bi nga xamante ni moom lañu mbokk jullit yi di waajal nii te ñu ci bare nag Seyda bu ñuy dem dañu naan dama fas yéene ziyaare ji yonent bi noonu lañuy ñuy tàggoo loolu laa bëgg mu njëkk leer ba pare ndax dañuy ziyaare ji yonent bi moo leen yëkkati sallallahu alayhi wa sallam wala. waaw Seyda comme ni nga ko waxee sànq rek moo am dangaa andi tem bu am solo boo xamante ne dañoo tollooti ci waxtoom macha allah di dellooti nag di santaat subhaanahu wa taala bi ñu tee ñu amaat benn occasion pour delloo si suñu bopp raxasuwaat ci ay bakkaar raxasuwaat ci ay tilim tilim ginnaaw bañ jógee ci koor gi ñu passé macha allah kon subhaanahu wa taala moom kenn du moom. moom moo xam nit ki ko sàkk loolu tax gis nga ni mu ñu ko programme programmeel te xam ne al insaan moom day fàtte rek kon toujours macha allah daf koy jox ay occasion rek toujours bii nag moom bokkati ci occasion yoo xamante ni ëppati na solo lool lool lool lool sayda boo xamante ne benn la ci ponk lislaam yi nga xamante ni juróom la ndax baada shahadat an laa ilaaha illallah iqam salaat moo ci topp ida zakat moo ci topp sawm waaye wax xajjul bayt da cee daal di topp moom itam. Hmm. waaye nag li ma ni sataa ilayhi sabilan lañ ca subhanahu wa taala teg. kon yàlla subhanahu wa taala gis nga ko dafay oyofal toujours nit ki di ko teg lu mu mënul ndax gis nga ba mu ñëwee ci bi mujj bi rek dañ li ma ni sataa ilayhi sabilan. Hmm. ku ko xamante ne da kaa man muy aj nag di lu am solo macha allah nit ñi sayda comme ni nga ko waxee ni ñu koy préparé xam naa préparation bi waroon naa mën a yomb. waaye mu mel ne jamono yi préparation bi dañ koo xaw a mën mel ne dañ koo xaw a jafeel tuuti laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaaha moom la wax mhm. yàlla moom xam nga ne lu mu teg ab jaam mukk lu mu mënul waaye mu mel ne nit ñi ñoom ñoo dem a dem a dem ba mu ñoom ñoo ko mën a jafeel ndax ci niñ koy jëlee rek ak niñ koy defe te nii ñu koy defe kat bu ñu ko defe woon comme diine ni ñu ko soxlaa xam la leen fay yóbbu xam lañ fay wuti mhm. xam macha allah bu ñu demee lañ fay jëlee ci toyaaba macha allah dinañ ko préparé comme subhanahu wa taala rek ni ñu leen leen ko waxee mu simple ci ñoom ñu am seen diine macha allah raxasu ci ba set wecc waaye nag maal asaf jooju ñuy wax nit ñi ñoom daanaka saydan lu ñu wax yokk dugal yëfi àdduna ba yëfi day mujj ëppi loxo sax daanaka. Mm-hmm. day dema dema dem ba saydan ñi doon bëgg a dem màkk sax ku bëgg a dem màkk fii nag da nga am paas sax waaye da boo boo moytuwul nga fi nekk di ko waajaat. doo ñeme dootoo ñeme ndax yiñ ci yokk moo tax. dañ ci yokk dañ coo yokk seen protocole yoo xamante ñoo ko ci yokkal seen bopp day day mujj nag des dem nag ba ba boo ba muytul sax jaam yàlla nga day daal di mujj nga ñàkk ko ca ba muytul ci ay ñenet ñu ko yàlla yàlla bu mu am waaw kon nag macha allah gis nga comme ni nga ko waxee rek ni ñu koy préparé ak ni mu waroon a nekkee daanaka eh, xaw naa jiwoon ci ay ñenet rek rek lay ñuy wax ndax loo exception da ciy am xam na ci ñoo xam ne subhanahu wa taala noonu ñu doon ko sante noonu sunna ba nemee woon la leen tax a jóg toujours ci lañ koy teg rek nag teg ko ci sunna rek nag macha allah waaye am na ci ñoo xamante ni fii ne dañ koo metti la mettil ba dootuñu ko àttanati. ndax sallallahu alayhi wasallam dañuy ziyaar yi wala leneen la. waaw Seydou ko wax comme ni nga ko wax sànq ci laa doon bëgg a ñëw nekk ko ni sallallahu alayhi wasallam moom lañuy ziyaara ji de kuy aj Makka dangay aji néegu yàlla ba. muy néeg ba nga xamante ni huwa awwalu baytin wudi'a linnaas billazi bi Bakkata loolu subhaanahu wa taala wax ci alquraanul karim muy néeg bi nga xamante ni muy néegu yàlla benn kot boo ni. moom la fi yàlla moom bañ nañ ko ba képp kuy julli macha allah bu fa boo fa jubluwul sax sa julli du baax jàkka joo jëm jumaa joo mas dem jubluwaay ba jubluwaay bi benn lay doon jullit ñëpp a koy bokk muy makkatal mukarram muy néeg boobu kon booy ziyaara ji néeg boobu ngay ziyaara ji muy farata nag di benn yoon boo war a def nag ci sa dund yeneen yoo ko def yu ne ay ziyaaraat lay doon rek waaye farata ji moom daanaka benn lay doon gis nga yàlla dafa rek sayda julli euh, màkka jooji mu lay mu lay gis nga yàlla dafa xam ni nit mën naa dund ba dee te du dem Makka mhm. yàlla xam na ni nit ki mën naa dund ba dee du am mën naa am ay moyens mais mën na ko mën a mañ ci mën a man ci yaramam ci santeem waaye itam mën naa am santé des fois itam waaye des fois itam mën naa bañ a am ay moyens yàlla loolu yëpp da koy sooraale loolu moo tax daanaka euh, oustaz aadi ni mu ko doon waxee rek barki démb nit ki bis bu xëyee bu jullee rek joxewaale na joxe dem màkka demaale na màkka ci biir macha allah. amna buñ ko doon décortiquer loolu ma ab émission spéciale lay doon loolu kon yalla ci mbaxam la wax la ci mbaxam rek motax mu yokkaat ko ca ni nak bu boba ku am ay am alal te man ko ci seug wér man ko ci am am war nga dem lillahi subhanahu wa taala kese nak pa ngay dem pour ay lenen pour dem damay visiter jek damay toppandoog damay wujjeeg diw dom dom ja yub nako makka taxawal teem sa dom pour na la makka màkka paa ay wujjante loolu war la taxajuk kuy dem makka da nga war xam lu la fa yub sëy dara boo koy def arab di wax wax wala bind day am muqaddima dafa war am tahlil dafa war am xet xitaam jëf itam noonu la war a def nit mënul dugg ci loo xamante ne xamu ko mu mel ne nit ñi daanaka fi ne màkk ji dañ ci dugg rek te xamuñu ko carrément dara nag bala nga cee dugg da nga war a xam lan la xam commencement bi li nga jëm mooy ba pare xam boo yeggee fay xaar wante boo ko defee ba pare itam yan njariñ nga ca jële kon ñett yooyu il faut que lépp loo mën a gis nag il faut mu am a wax noonu la war a mën a demee jëf noonu la war a mën a demee kon màkk nit ñi dafa mel ne dañ koy bëgg a xaw a réeree tuuti ci ñennet ñi ni ma koy waxee rek toujours am na ci ñoo xamante ni ñu ko jëlee du côté booba macha allah diisal nañ ko ba mu dina te war woon a diis te waroon a mën a oyof waaye itam des fois ñu oyofal ko ba foo waroon a mën a egg eggu fa la leen ci seen diine sant duñ ko def kon Sayda daanaka añ mag fii ne daal sa thème bi daal moom thème bu am solo la macha allah. am na après dinañ duggaat ci biir. Ah, am na solo te am na yu ñu ci war a retenir yoo xamante ni mhm. xam naa ne sama masque yi. Mhm. gisewuñ ko ni nga ko waxee. Mhm. comme ni nga ko waxee ñenn ñi mais ñi ci ëpp sax laay wax man. ñi ci ëpp ñi ngi préparé di dem. Mhm. te xamuñu la lan lan fa war a def. Mhm. xamuñu lan mooy eh, sababu seen dem. Mhm. xamuñu aussi bu ñu demee ban comportement la ñu war a yor. ak bu ñu ñëwee ban comportement la ñu war a yor. comme ni nga ko leeralal nga ñu ni moom mooy juróomeelu ponk islam. kon farata la. farata la waaye nag leeral nga ñu ni ci képp ku ko mën. loolu tamit dañ koy réere li ma ni saxtaa li ma ni li ma ni saxtaa ilayhi sabila koo xamante ni mën nga ko. mooy dem. boo xam ne mënu ko du dem mm-hmm. kon Seyda liñ ciy daj ci dem di def ji ay prêt wala dem di ji wuti di lebi ji wala ah, di dem ci ah, natt sax xëy na foofu dinaa la ko laaj après ba xam mm-hmm. natt bi mm-hmm. eh, am na nu nu muy mën a demee nga war cee bokk pour màkka wala après dina ñëw insha allah mais dem di def ji ay prêt wala di lebi ji loo xamante ni xamul wóor la ndax dinga am fay bi wala di nga ko remboursé ngay dem di aji ji ci loolu kooku leeralal nga ñu ni ki ko mën mooy dem kon ki ko mënul bu mu ci rey boppam leeralal nga ñu aussi ni ñu képp ku ko am farata la ci yow ndax sëy foofu am na solo parce que dafay am ñoo xamante ni dañ koy am war a mën a dem. Mhm. mais du ñu dem. Mhm. dañ koy jox ji keneen ndax naan mën a gumaa dem te fekk ma majeur nañu yor nañu ko euh, xaalis bi euh, mën nañ ko physiquement. Mhm. mais dañu jox keneen ni man mënuma ko. Euh, bërki démb dafa am ku may waxtaanal. mu may ñaanal yàlla nga dem màkka. ma a ko yàlla nga ñan ñu ànd dem. mu ne ma déedéet man mënuguma dem. <laughs> ma ne ah. mu ne ma man moom damay teg greffage te muuraguma sama bopp. <laughs> dama bëgg ba te mënaguma ko bàyyi léegi damay bàyyi ba ma bàyyi lii ba ma bàyyi greffage ba ba ba muuru soog a dem màkka man ko kon so amone ni ni ni pour dem mak do dem mak mu ne ma guma ko legi nak ndax man mënaguma bàyyi lol am nga loolu kooku réere na moo tax ne yàlla fekk ni mi ngi setan li li nga wax ni mu xam ko xam ni ku ka man na farata la ci yow dang da nga ko war a def kon leral bobu amna solo ma sha allah Seyda ni ñu koy préparer ni fim ne ni amna sama morom yo xamanteni ni ngi wajal nganale demaguñu de mais ñi ngi préparé nganale gi bu ñu ñëw <laughs> ña ngay ñëw euh, li ñu war a sol ci nganale gi ñu ngay dénkaane pour nganale gi ña ngay préparé nagu ngana nganale ak yeneen euh, yoo xamante ni yu ñuy soxla ci nganale gi fi mu ne nii am na ñu koy waajal ni te demaguñu. Sayda loolu muy doy waar. nganale gi ak waajtaay bi. am na mhm. ñoo xam ne waajtaay bi dañoo yaakaar ni euh, laax yi ñu ciy joxe avant ngay dem. Mhm. wala ni ñu ciy defee kaamil yi ak yooyu mhm. farata la ci. Sayda loolu yëpp macha allah xam naa sarax de baax na. wàcce kaamil itam baax na moom bu ko demul màkkaat war ko ko waroon a def waaye nag du nekk ne kii dem màkka rek lañ ko farataal ci moom dem màkka ji loolu de loolu du ci farata yëgle bi du ci farata seet am na ci ñoo xamante ni fi mu ne dañuy dugg dëkk bi bañ naaneem ndox ca koor ga ba léegi amatuñ jàmm mm-hmm. ñee ña nga ca téere yi di jàppante surtout suñu mbokki jigéen yi ci ña ma ko war a wax <laughs> xam nga ne ñoom dañoo am jot dañoo bëgg àdduna ci téere yi la nekk di jaabante valise nag lañ nar a def ñaari valise ba ñett sax doyu leen ci dem màkk ji sayda xamaa ñoom xam ñu ni jaamu yàlla moo leen fa yóbbu mm-hmm. màkk sayda ku fa dem rek pour dem màkka ak la la fay xaar boo ko xamee macha allah foog naa ne yow de doo tal sax ñaari boo ñett ba ñu ent te xam naa ne lu a ko fa a yóbbu ndax mm-hmm. doo am jot foofu jotu jaamu yàlla dong moo am da ngay war a profité woo sayda day dëkk boo xamante ne dañ ñu la dëkk bii kat boo fi duggee sag aj bu nangoo carrément di nga def ko ni nga ko war a defee dafa mel ne dangaa raxasu ci bàkkaar ba mel ne jour ba nga juddoo woon c'est de loolu na lu ne jar na lu ne jar na lu ne jar na lu ne bu la yàlla dimbalee dimbalee ba nga dem fa te xam ne am na sa ay morom yoo xamante ni yàlla baaxewu leen côté boobu ah kon yow mu fay dem war nga mën a mën a profité man ne toujours dama xam ne ay man bu ma demoon màkka waaye xa naa naa noppi rek ah bu ma gisee ñuy dem màkk nekk ci ay xotti ay ñawlu yëgle bi nag di yëgle comme xew te xoolal boo yëgalee nit ko xam nga lu tax nga yëgleem lu tax ñu yëgleem sayda pour en cas bu ma ñibbisee rek na koo ko ñëw ca ngan ga indil ma dara ngan yi léegi dañ ci nekk sayda avant ngay dem am na ñoo xamante ne bu naan man de ba ma ko tàggoo ba ma joxuma dara kon bu ma ñibbee du ko jox sarica sarica sayda am na ñoo xamante ne fii ne bis bu ñu xëyee Dakar la ñuy yendu ña nga ca tusiya ña nga ca kii di jënd ay ay sërica ñoom ñi ngi jënd ay sërica te dema ko comme ni nga ko waxee sànq waaye ñi ne ñoom mm. buñ doon dem xam nga lu ñu jëkk a fay seen bor lu ñu jëkk a def di tàggatoo weer ndénkaani seen bopp duñ ameel kenn dara bàyyi fa seen lépp fas ñu yéen yëpp benn aqu kenn ndax say dafa nga jëm daa sore te xamul da nga del seen déet boo xamul ni suba suba sax dana la fekkam déet waaye war nga am fitu nag nga dem tukki tukki bo xamanteni ni da nga fa war nga ma won am weer danaka nga nek na yow da ngay préparer sa ñibbisi bagage yi duñ ko yóbbu de seede fi lañ koy bay fi ci Dakar lañ koy bay yalla nak buñ baye nak bu lay goor la mu bàyyi ay wujj nak aha ngan nga mom fa la nar préparation préparation fa la nar gëna metté a ndax kenn ku ne yaa wutal valise bu mu wara yob ñi wujje ci balise ya nga top nak ci ay yére ak ay sol ak summi seede am na ci ño xamanteni dañ dem makka ba ñew sax woor na yalla seen farata ci ñam ko wara wax genn wàll yëpp dañ koy fàtte li kay faté sax Seydou ñu waron ko préparer nak préparer ko nenen préparer ko nak ci nak ci jang préparer ko nak ci jang yow Seydou dama fa ko ne bu ñu ñëwoon ren da ngay dem makka war nga défar waat bu baax défarat sa bop bu baax del waat ci naafile bu baax jangalat sa bop jangalat sa bop ay naafile bu baaxa baax bu gën ta entraîner sa yaram bu baax Seyda dogu ma la way amna mhm. réew yo xamanteni bala ngay dem makka da ngay def formation ha mom la lay bëgg a wax fii ni koy bi euh, waron na fekk euh, waajal mais ñun mom dañoo defee ni ku jot ku jóg rek war ngaa mën a. heure Seyda waroon naa fekk macha allah ñu ubbi fu ne gouvernement bi sax waroon naa mën a ubbi loolu di ko maye ñëpp di def ay formation ñëpp dañoo war def ay surtout ñun suñu mbokk jigéen ñi def ay test xa ñii war nañoo dem war nañoo dem ñii a dem li ma la waxoon sànq li man istataa minhu sabilan li man istataa jooju noonu alal ji da ciy bokk man-man bi da ci bokk waaye xam-xam ba da caa war a bokk Seyda kuy dem Màkka war ngaa yóbbaale dara xam au moins ni au moins xana buma demé warna ma ni wéré ka kaaba ga xana xana war na loolu waruma dem ba ca fa egg fofa nan lool ma tax gis nga seede ñom ñu ci bëri ñi ñi lay di dé ak ñoo son bu ñeggee mak dañuy son dañuy son surtout ay maire yo xamne dañu dañu dañu fiix ci seen bop ñom bi ñu ñëw préparé lu suñ bop dara ñu ni xamna ñi fa ñëm mak formation la de am jang mu mak la dalay jangal benno dalay jangal bokku dalay jangal ni ñepp ñoo bokku yam dalay jangal ni fofu amul 6 amul bodante am te da ngay muñ amul lu neex la amul sama kër dama ko wara continuer diko am lolou yeb dang ci wara continuer di ci entraîner wat sa bop te côté diina jël sax nak rawati ci nak au moins gennum ñaan ak ñaan sax nga jël sa xey di dem ñu nakoy jangal sayda nga war ko mëna xam bo eggé bo wéré kaaba nga xana ñaan gi ngay wara xana lool war nga ko mëna jangal sa bop waye diñ ko def de taluñu ko sayda taluñu ko dedet dañu talu lolu de degul mi la xam nga lan lañ talam robe bi da laay sol bu ma sumee bi ba ci ak tàkkusaan gaa kol gi laay kolo bu ma summee bi bii laay sol ak di préparer xaalis bu nga xamante ne bu ma demee moom lay jëndee commerce nekk ci ay kayit di bind ak ak ak rëdd lii laay jënd diw ma yóbbante lii lii laa ko jënd seen temps bi yëpp loolu ci loolu lañ koy passé bañ ñu acca nag yurub ci avion ba ñu commencé légui yow mi la diggé dé am nga problème bu maga a maga a maga a maga a mag a de mag a la dit dé ñu fa gàcce la gatcha la gatcha la amna ci ñoo xamné wallahi lazim seen mu normal sax ñu ko faf mais seede ñom mais li ma la wax sank rek dara bo ci dugg il faut nga xam li moy lan gëdd bi makka bo fay dem dañ ñëm nga julli fa benn julli rek wéccu nu témer téeméeri julli ci bo julle fenen fa du ci ci kaba ga xoolal genn julli yow fi yang ngi fi nekk di rap rappi suba tàkkusaan timis ge naafile yi ca biir lépp yaa ngi ci di wuti yàlla waaye fee nag fa la yool ba ëppee doo ci profité nag say da ngir yàlla jéem nag def ko fa nag loo sa kem katan loo fa mën ti julli loo fa mën ti julli rek doyul loo fa mën ti julli ak ñaan doyul loo fa mën ti julli ak naan doyul ndax di nga da ngay profité woo mën caa indaale sëri ca bu doon ci ngay indaale nag sëri ca bu say ci jaamu yàlla macha allah. sans loolu am na solo. après bu ñu demee ci fin bi xam naa incha allah. am na solo waajtaay bi kon ñu xam ne eh, li ñu tax a jóg. Mhm. mooy defi farata boo xamante ni subhanahu wa taala daf ñu ko sant ci ki ko mhm. kon bu ñu dem nañu wàcc jàng. ni ko yeneen réew di defee formation bi 2 ans wala lu ëpp 2 ans ñu pare defal la test ku réussir jàll ku mhm. réussirul ñu xam ne yow mën a goo nga mhm. toogaat ba defal formation ba mokkal mhm. soo ko dem macha allah dëgg la sax agence yaa ngi def formation waaye formation yay gàtt diggante bi ngay waaj ak bi ngay def kii euh, euh, dafa doyul dañ leen war a former bu baax a baax def ay test xool ñi di réussir ñu dem su ko defee bu ñuy préparer comme ni nga ko waxee ñu xam ne la leen yóbbu du puukare mhm. la leen yóbbu du mbumbaay mhm. ñu fexe jàng lañ fay jë def xam seen suraat yan fa gën a soxla ya nga xam ne moom lañ fa soxla mhm. ñu jàng ko mokkal ko xam ñaan ya nga xam ne war nañ fa war moom lañ fa war a ñaan ñu xam ko mokkal ko xam tamit ni lii yàlla dafa ñu ko sant subhanahu wa taala ngir defar ñu comme ni mu ko santaane yeneen ibaadaat yi pour defar ñu aj bi tamit daf ñuy defar

comme man par exemple ma tëxat sama tëxataay ni damay mois de décembre lay aji ndax day sedd. mako comme dafa tàng damay xaar ba décembre. mo koor a de. kenen jóge fële ni man de koor lay aji ndax te koor mom damay sàkku tuyaaba kon ci la lolu amul. amul ci aj aj mom jour yi ko yàlla tànnal rek lañ koy defé yeneen yi ay umra la mom lañ ñuy def ci yeneen mois su ko defé ñu xam lolu ñi aji xam ko bu baax xam lañ fa wara wax. xam lañ fa wara def bu yeggé ba fofu tamit ñu xam lan lañ fa yóbbu. bañ a nekk ci ay mbumbaay tamit. Mm-hmm. Seyda am na mm-hmm. ñoo xamante ni dem nañu am ah, man gis naa ko. Mm-hmm. ñoo xamante ni day lanu nekkee màkka mooy nelaw. lekk. jàkka ja am na ñu fay nekk ba jóg fa. jumaa ja soo moytuwul benn yoon lañ fay dem wala ñaari yoon. boo moytuwul benn yoon wala ñaari yoon. bu nit ñi dee julli ji ñu nga tëdd di nelaw wala ñu ngay wuti marchandise. marchandise ñu ngay jënd seen marchandise di dajale. di dajale ñu ngay jënd seen sërite di dajale. duñu jege jumaa ja duñ fa romb duñ fa jaar. bu nee nii ñu julli ca biir néeg ba këpp këpp pare ñoo am na ñoo xamante ne loolu leen fa yóbbu waaye ak bi ñu leen sant bi nga xam ne subhanahu wa taala moom la leen sant Seyda am na ñoo xamante ne loolu yóbbuwu leen fa. Mm. xaw ma nag réer la wala wala wala euh, sàggan la wala xaw ma daal mu demee waaye am na ñoo. xamante ne foofu la mën a yem. Mm-hmm. ah ñun fii rek fii ñu nekk nii rek ci Cees gi rek bu ñu julli fi ne noo ngi noo noo ngi dëkkërle fas yéene jàkkaarloo di xool di nattale Kaaba ga fan nekk pour ban koo bañ a mooy. rek ñun te xamuñu fu mu ne sax de. Mm-hmm. ay waay yow yàlla ne la coppet ba nga ñëw mun la man maa ngi nii taxaw. Mm. ah Seydou nga di ko fa romb di julli ci biir néeg. wallaay ba am na fa. ah gis de càggante am na fa càggante am na fa sama njëkk bi daf koy wax. sama njëkk bi de man maa ko danaan man li ma metti ci sama xol bi man maa ko xam. Mm-hmm. ab sa lu la metti mun ma xoolal xale yu ndaw yi ñu yóbbu te ñëpp dañ nag dañ leen di may ay billets mooy li ma la wax rek. xamuñu luy màkka di li xaalis bi ñu demee sax dañ leen koo may ñoom li jëntiwul lu nekk maa xamuñu leen lu leen fay xaar xamuñu dañ fay wuti ji tuyaaba xamuñu leen ñoom daal en dañ ko def daal comme comme comme comme benn benn nuzha daal mm-hmm. ci ko arab ni mu koy waxee mooy damay dem nii rek euh, promenade nii rek ànd ak nit ñi ah, ñu bëri noonu lañ ko jàppee ab dem nañ màkk ba ñëw seen lal yi ñu tëdd jógewuñ mosuñoo dugg ci jàkk ji naan dañuy julli ji ah. bu ñuy julli ji ñun maire yi noo fay nekk di kurung kurung ak suñuy tànk yi mett nu koy bës a yéegi escalier di waaye ñoom ca kaw dañuy nelaw ba yeewu naan fi ñu doon jullee mais man daal Seyda loolu nag moom man man jaaxal na ma loolu man nag yàlla ku mu tàcc te feccoo ñooñu dootuñu feccati mukk man yaakaar naa ne dootuñu feccati mukk wallaahi azim ku dem ba Makka bi nga xam ne xurum ba doo taxaw fa. Mm-hmm. set nga wicc xurum ba rek laa la wax boo fa taxawee set nga wicc ndax subhaanahu watee taala moo naan def ni mooy dëkk bi nga xamante ni ja'alahu mubaarakan wa hudan lil aalamiin dafa nekk dëkk boo xamante ne dafa barkeel ba nga xam te ak njubl ak leer lay doon nag jubal monde bi ñëpp ñépp di fa daje kenn ku nekk di ñëw di wut tuyaaba kenn ku nekk di wut noo ko xëccee noo yóbbee seen dëkk seede am na ñoo xam ne dañuy jóge màkk ñu ñëw nga leen ziyaare ji waaye daanaka jar woon nga leen di ziyaare mm-hmm. yow boo moytuwul yow mi toog fii sax yow ndax yow yaa ngi jéem nattale naan fu kaa bëgg a nekk fu mu nekkul sax julli fu muy jubee fu mu jubee mais ñoom ñu dem ba ca ba Màkka jàkkaarloo kaa bi carrément wala ñu ngi seen kaw étage ci hôtel ba tiim kaa bi carrément. Mhm. tëdd di nelaw mais ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu Seyda jërul ñuy ñëw ñu leen di ziare loo leen di ziare. ba moytu sax julli ci boppam dañ ko fay faat julli googu boo xefee sax ñu faat ko fa waxantuma sax nag nga naan ñi ña ca ne xaw di julli ci ay néeg man daal foog naa ni ak négligence moom eggatul ci nag nag eggatul ci nag sax nga dem ba Màkka waaye am na nag. am na loolu nga ko waxee noonu aka am mooy li ma la wax dañ ne ay ganu yàlla la yonent bi nee na ay ganu yàlla la la subhanahu wa taala subhanahu wa taala yow buñ la nee tey ganu président de la république la moo lay recevoir tey wala ñu ne la sax boo matul buñ la nee préfet lay recevoir sax tey dina am nooy nooy dikkee di nga xoolaat sa comportement xool ni nga war a waxee xool ni nga war a defee ñu leen la nag yow yàlla moo lay recevoir yow ganu yàlla nga ñiy umra ak ñiy aj màkka ay ganu yàlla lañu nga ñëw ak nu mu la neexee. xuloo bi nag. xuloo ca biir màkka. te dañuy xastante waxante lu ñaaw jidaala wala jidaala fil hajj. wallaay. arafata wala fusuuq wala jidaala fil hajj yooyu yëpp wax nañ ko ci. amul werante jàngal muñ amul xuloo dalay jàngal muñ. waaw dalay jàngal muñ yow nag nga dem ba ñëw wala nga dem ca foofu sax ñëwagoo sax xamuloo luy muñ. ku la ne sa bët bi suuf a ngi si wala ku cof sa tànk sax nga taxaw histoire. ca commencé di xuloo. wallaahi moo tëdd sama place ak. moo laal sama lal beeg sama yére yi ma lawoon teg ko fii kan ma laal sama njàmpe gi ba may sangu yow damaa defoon nii maire absent koy det leen am amoon na maire boo xamante ni maire bi de ñun dem na woon siiw génn néeg bi ñun dañ dañ dañ ko ko abal ñun te wuti feneen fu nu lëkk ndax maire kenn mënut a dekk ak moom kenn mun ta nekk lekk gi sax dañuy lekk bay xuloo ci lekk gi li ñu di lekk lekk gi ñuy lekk sax dañuy xuloo lii lii ko koy togg xam nga ñoom màkk seen màkk seen seen lekk daa daa lewet dañuy xuloo bay xuloo ca lekk ga meer bi mel na ku nekk këram lal basangam fu ne te buy julli neen ci néeg bi sax fu ko neex buy naafi la nii fu ko neex la koy lal kenn du ko tudd te kenn du jege bagaasam bari na ci morom nag am na ñoo xam ne loolu loolu loolu am sa kaj alxaj almabruur lañ wax alxaj almabruur mhm. falaa rafasa falaa fusuuqa wala jidaala fil xaj loolu lañ wax mhm. aj bu ci am loolu nag bay nga xam alxaj almabruur moom aj de am na fa waaye alxaj almabruur moom foog naa kenn du ko fa xalaat kon Seyda nit ñi nañ defaraat seen bopp mhm. sénégalais yi nañ defaraat seen comportement yi al axlaq al fadila joxo defa naa fi ab émission fële al axlaq yooyu buñ ko bàyyee du sotti ak al ihsaan ni ma ko waxee woon ci thème ba passé woon ci ci ci ci rajo Dunia. al ihsaan la nit ñi fàtte nit ñi dañoo fàtte ni li ngay def lépp yàlla mi ngi lay gis. nit buy def day def ngir yàlla. fii ak nag nit moom loolu génn na ci boppam bu génnee ne yàlla nga ma surveiller rek moom ku yebbu bàyyi ko ndax moom moom bàyyi mooy ñooy mujj di yem. lu ko def macha allah comportement bi nga wax nii. Mhm. sénégalais yi ñoo fay yor comportement yoo mhm. xamante ni doy waar la. doy waar da ngay gis euh, jigéen ñi. Euh, ñeneen xeet yi ñëw yëpp seeni jigéen seeni góor dañ leen di protéger. macha allah bu ñuy euh, tawaaf nga gis ñu jàpp seen loxo loxoy mhm. protéger seen jigéen. wër leen Sénégal rek laa gis ñuy ñëw di buuxanteeg seeni jigéen bu ñu nee bis yu taxaw nañu sénégalais góor yi dañuy daw njëkkante. bu ñu protéger seen i jigéen yi dañuy daw njëkkanteeg ñoom dugg ji. njëkkanteeg ñoom dugg bu ñu nee euh, ñu ngi dem bërëb sàngam góor ñi dañuy daw di njëkkante duñ leen protéger. lolu tamit comportement bi nga wax li da fay ñëwaat. bo duggé ci hôtel ya ñuy lekké sénégalais woné fa bopam dañu jël seeni plat duuy ko duuy duuy lo xamanteni ni leer na ni mënuñu ko lek mais buñu paré wàcc ko fa desit ta desit bu fa des ñu jël ko sotti. jikko yi loolu jikko yi lañu wara defal defar jikko yi lañu wara defal wallahi innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in zahabat akhlaquhum zahabu bu ñuy wax ab société wala ñuy wax ay nit wala ñu ay ñi considéré waale ñu naan ñii kat ñoo fi gën a yiw ñi ñoo fi gën yar ñi ñoo fi gën a nangam te jikko yàlla rek xam nga moom fii moom même président bu doon wax ba sonn sax mënul kenn ku nekk nag saadee mu ngàbb aw yet nag naan la kaay mhm. defal ni wala ñu ngàbb aw yet naan la bu toog fi yëkkati ko fi palaat bi yëkkati ko nangam yow loolu yow yaa koy defal sa bopp loolu civisme la yow koy defal sa nit il faut que mu defar jikko jikko loolu day rafet jikko bu rafetee fu borom lu def day rafet jikko ji rafet mom lu morom meuna def rek ci rafet rek lay mujj way jikko mom bu xasse jaxaso kenn ci man dara fi ba makka fi ba jidde mo ci yam fi ba muna war sax ci dëkk yeneen boobu ñuy wax wallahi da nga fi gis sénégalais ñi fa lañuy ñuy dem ca danañ dem sax ba place yonent sallallahu alayhi wasallam di fa bëma xante wallahi ñame nañ ko de amna sax amna te amna fa sax ma xamna naa déw ma wàkk waaye fa amna fa da ndax jikko du gane dal jikko mom fo jëm day and ak yow loolu moo tax baaxal ko fay am solo rafetal ko da fay am solo en tout cas daal man daal Seyda nit ñi nit ñi demee màkk di ko préparé ñëw ba nag moom kenn waxaale wu ko nga ne màkk yi fii boo ko fekkee xam naa excès gu ci waxtaan waaye xam naa ne macha allah ni ma la waxoon rek. waaye Seyda gis nga jikko yooyu mel ne yàlla da cee wàññeeku. jikko yooyu bu dee yow dañ la yar yar yar bu bon. Mhm. wala yaruñu la ba nga yor jikko yu mel noonu. booy waaj a dem màkk li ma waxoon rek. ñu defal la formation. ñu waajal la waajal la formation bi ñu xamal la ni yow fa nga jëm. boo fa defee def bu sell boo ko demee ak yéene. Mhm. yàlla rek tax nga dem waaye demoo fa pour ñëw ñuy wax Adja wala ñuy wax. Adja da nga fa dem pour def ji joxe ji sa farata bu yàlla teg ci sa kaw. Mhm. xam li la fa yóbbu defee ko ni nga ko war a defee Seyda nee nañu boo wàññeekoo da ngay mel ni liir buy soog a judd wax nga ko sànq. wallaahi lazim boo xamee loolu formation boobu soo ko amee di fa comporté wu noo xamante ni da ngay bëgg sa aj nangu su sa aj nangoo nga ñëw mel ni liir bu sa euh, soog a judd defe naa ku ne bëgg na loolu. ku ne bëgg na juddu li yàlla yonent bi mm. sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni mm. eh, liir bu soog a juddu day weex tàll du am benn bàkkaar day nekk koo mm. xamante ni ku pur lay doon ruugu sell lay yore boo jógee màkka noonu ngay mel mm-hmm. dangay yor ruugu sell goo xamante ni dara benn tâche nekku ci boo xamante ni bu bu bu set wécc ci lay doon suñ la xamalee loolu Seyda est-ce que di nga fa dem di fa def nag su du noonu di nga kër këri pour sa aj nekk aj boo xamante ni aj aj bu nangu lay doon ba boo ñëwee euh, yàlla mën la jégg sa bàkkaar yëpp nga ñëw seen. dama seede man sama màkka damaa foog ne ku fa dem war ngaa mën a xalaataat leneen nga xalaataat wa salaam ba mu fay ñëw day léew ak tabaski bi ba mu ko ba muy ñëw ci place booba nga xool ni manasik yu bëri place yu bëri ñu ko doon def xëy na ak jigéen a ko doon def. daanaka mm-hmm. moom lay toppandoo. ay jigéen ji ba muy def lii ak a metti woon ay yow wa yow yow nag biñ la ko indilee pour le moment nii sax moo daq moom bañ fa ay xeere kese fa woon de dara ñëw fa woon yow nag fii na ñu ba mu confort escalier yaa nga jaar fee yéen mokkat yee jëm fee foo jëm des fois senseur nga yéeg mu neex ba dee ah, envoyé seede nag wax dëgg yàlla sama xel war naa mën a dem ci yeneen ci yenente yi nag yenente yi fi jaar yëpp sax nag yenente yi somm nu bay bëgg a dee sama xel war a delluwaat ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu fa nekkee ah di woon lool métit bañ def ne nekkoon Seydina Ibrahima alayhi salaam muy defaraat kaaba gi ba kaaba gi mel nii tey ba nit ñi dafa dem fam jaar yëpp nga xool ko xoolaat sax Sayyidatina Haajara fam jaaroon yëpp ak paayam nga xamante ne ñun dañoo ñëw di ko toppandoo si di ca jaaraat ci li mu defoon donc kon loolu yow boo ko dee xalaat dund googu boo ko dee xalaat ca Màkka foog naan man dafa xalaatal nekk sax naan dangay solo yow yaa ngi war a yaa nga war a góorgóorlu naan maa ngi siyaare ji saxaaba nangam ñu naan ah xaswatu badar de fii la woon xanaa war ngaa dem di jéem a découvrir place yooyu sa xel di ca delluwaat ca ñooña jullit yi lañ nekkee woon del siwaat beesaat tax nekk nag dund nag diine carrément ndax màkk mm-hmm. lépp diine la makka place yëpp di yàlla wax ni yóbbalu leen yóbbal bi ah, gën ci yóbbal tazawwadu ah. loolu la ngay wax ji loolu mooy essentiel lu lépp a taqwa boobu taqwa moom bu sottiwul al ihsaan mi wax sax du man a sotti mm-hmm. kon a taqwa day am a ihsaan topp ci ñoom ñaar ñoom ñaar ñu ànd kon gis nga makka man daal foog naan ko fa dem war ngaa mën a xalaat leneen nga dem ci jamrat ya xalat bi ñuy jamre yi nangam yoy boko de xalat dundu nak dundu dund bi sallallahu alaihi wasallam sallam fa nekkee won mam ibrahim ak mam ismail nañ fa nekkee won son bay bëgg a xalat ak sayyidatuna haajara ah soxna kese la won ñu tégon ko fi bo del siwaatee nag wara a mën ab bu duun te sërite bi moy comportement bu changer pa sërite bi dañu sédalé ay bagage ay nangam sangam boo del war nga nek ku ñuy roy bo ñibbi makka war ngaa nekk ku yeneen ku ñu roy ñëpp mm-hmm. war naa xamaat ni ah diw mi diw mi yéex naa dem màkka de mm-hmm. wala les war naa mën a am waaye c'est malheureusement nit ñi dañuy ñëw faf sax mel ne da ngay fàttali ki kii est ce que dem mas naa dem màkka sax dootu ko xamante sax dootu ko xamante nit ñi sax ndax daa ñëw sax gën a faf gën a ko faf benn yoon am na ñoo xamante dem màkka ba ñëw tax lañ doon solo la ñuy solo waaw solu ñu sol bi leen yàlla subhanahu wa taala sant doo xam ne sax ndax kii moom jullit la wala te dem na màkk ba ñëw. ñibbi si kay di jaay ay or xanaa di di jaay ay or bu mu takkatee ba liggéey mu ne beneen laay takk di wane ni loolu lay wane ni moom daa demoon màkk ah, ah ah du foofu de du foofu de du foofu de ku jóge màkk bañ lay ziar Seydou noonu ñu lay ziar ci jour boobu noonu noonu noonu nga ñëwee woon ak diine jooju nga indaale bu dee sax aj xaj mabrur la noonu nga war a continuer wallaahi ñu bëri war nañoo mën a jàng ci yow lu baree baree baree bëri a jàngale lu baree baree baree baree bëri waaye say def sénégalais yi daal mu ngi noonu ci ni nga ko waxee préparation yi daal moom metti na moom ni ñu ko jëlee metti na de Seyda Seyda eh, daal eh, waxtu waa ngi jeex sax waaye li ñuy tënk ci li nga mujj a wax nii mm. daal mooy kuy dem màq ak yóbbaale sa taqwa mm-hmm. xamal ni booy ñëw danga ko war a iddaale mm-hmm. boo demee ba foofu joxeel li say farata defal li nga war a def eh, ba mu mat sëkk bu la préparé yi sërite bu la bu la euh, pré waajtaayu euh, nga ne la yóbbu ndax am na ñoo xam ne waajtaayu nga ne la moo leen di tere di julli ji jour yi mujj yi wala di tawaaf seen tawaaf bu mujj. Mhm. ndax boobu mi ngi leen di fekk ñu defar seen i fuddan taf seen loxo yi taf seen tànk yi. wala ñu tëdd ca néeg ya di leetu di waajal bu ñu ñibbisee <laughs> waaw yow de yaa demoon baax nan ci bàyyi xel loolu bu baax xam ne ñu leen fa yëkkati du loolu <laughs> uh-huh, uh-huh. Euh, bu la neexee boo paree sa yëpp kañ dafa rafetal defarul mm-hmm. ndax boo ñëwee da nga fi bàyyi woon ay nit say euh, famille bàyyi fi mm-hmm. say nit ñoo xam ne mm-hmm. boo ñëwee war nga indaale euh, lu rafet war nga indaale changement changement mais nag bu loolu du sa priorité la la yóbbu mooy jaamu ji yàlla xamal ni lii moom ma fi yóbbu naa ko matal ba mu mat leneen lu may am am ko ci mais naa samay farata beneen yoon booy demaat pour commerce nga dem commerce bi. Mhm. mais na xam li ñu fa yóbbu ñu def ko ba mu mat. loolu laa doon bëgg a wax sax sërite yi du force. Mhm. ñu fekk si tamit ñuy def seen xel ci ay sërite ba ku la ko joxul nga mere leen na xam ne loolu du force. ki ko mën mm-hmm. dina ko eh, joxe xanaa ndax ku dem ba ñëw bu dee benn eh, eh, kurus sax boo ko amee nga jox ko nit ñi mm-hmm. bu fekkee am nga ko soo ko amul du force mm-hmm. ñiy xaar ci ñoom ay voile ak di xaar ci ñoom ay ay yeneen sañse yeneen i kii nañ xam ne loolu du force kii dafa defi woon farataam te li mu defi woon dafa metti loo xamante ni alal fekkewu ko doole fekkewu ko ñoom kay ñoo la war a jox sax yërëm la waaye waruñu toog di xaar nga ñëw di leen di ndax la nga fay dépensé dafa bare dafa. Seyda nag loolu foo ko foo ko fekk. ca dem ba la tàggatoo ba la. Mm. tàggatoo bi nga yëgle kër kenn ko da nga dem fa. dama ko di ko tàggu pour bëgg bu bu ñuy jox la bu yóbbal loolu lay wax ji Seyda nag ku jox bu yóbbal ndax buy ñëw dana dana dana am lu mu yaakaar ci yow de. xam naa baalu àq gi la dañuy baalu àq ndax xamoo ndax di nga dellu seeti di nga dellu seen déet. waaw balu àq waaye joxante joxe joxe yooyu de moom ma daje ma balu àq moom mun wàññiwul dara. a génne ci seen esprit lu lépp tànguwul dara rek nga war a mën dara jox loolu la ñu war a génne waaw ay joxe beeg da togg tàggu am na ñoo xam ne seenu dem sax boo moytuwul day xaw a mel ne ak nganale. comme ni nga wax sànq ña nga ca laaxi sarax yaag euh, wàccee kaab bi day mujj rëy rëy rëy bu ma wutu ab ab añ sax bu ma wutu dana leen ci mujj fekk di ab añ sax dana mujj am day mel ne dañuy nganale ñoom demaguñ fenn man daa seet àndawaa li ma wax te itam nañ bàyyi damay demal sama yaay màkka te yow demagoo màkka mhm. am na ci. am na waaw bëri na ci de xale yi surtout xale yu ndaw yi. am nañ xaalis comme ni nga waxee sànq am sa xaalis am say moyen am sa lépp waaye nekk fii comme ni nga ko waxee sànq naan xeesal bee tax ah sama gere faas bee tax man damaa pareegu ci yooyu pareegu ma ci génn bi ak fa bi am na ñoo xam ne lañ lay wax de. mënagu baa dem màkka léegi kon kay yow toogal benn yoon. wallaay Seyda Seyda xam naa te boo toogee yaa ngi def nag bàkkaar bu rëy rëy rëy loolu nañ ci bàyyi xel bi macha allah nag bi xaajul <laughs> waaw xam naa dinañ bi jotaay macha allah macha allah ci wàccaay bi te am na solo pour ñu gindi mhm. nit ñi ñu xam eh, mhm. li leen yóbbu macha allah kon daal ni ko Seyda Ami Thiam waxee mhm. encore une fois ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla wér ak wér le di kontaan ci wuy si bi ni mu ko leerale leer na nañ aji màkk cinquième pilier de l'islam la mooy suñu juróomeelu euh, ponki islam mu nekk farata ci képp ku ko mën physiquement ak ak euh, financièrement. Mm-hmm. ku am xaalis boo demee am wér-gu-yaram boo demee farata la ci yow bala ngay jox kenn muy dem su fekkee majeur nga. donc ñu xam lu ni lool la. Mm-hmm. bala ñuy dem ñu jàng ba xam saar yañ fa soxla xam mm-hmm. ñaan yañ fa soxla. xam la fa yóbbu. buñu démé aussi ñu comporté wu fa comportement bu baax bo xamanteni suñu farata dinañ ko joxé mhm. liñu wara taxawé dinañ ko taxawé ba bu déllu sé sét set wécc ci ay bakkar mëna mhm. reprendre soppé ko ba kuñu gis xamné makka gis du tour ba la soppé waye jikko jël la jikko la euh, solo lay gërëm. di la bàyyi nga tàggatoog nit ñi. da ma sha allah kon ñong leen di delloo ngërëm li wa di santat ci invitation bi sha allah di wax ngi di balu ak ñep wax ji mom lu ci dëng xamna ci ñun lay doon waaye lu ci baax mu ngi jóge subhaanahu wa taala waa di santaan ñëpp di leen balu àq di ñaanal waa kër gi macha allah yal nañ yokk ba yëg ko ndax diine ji macha allah ñu ngi ciy def lu am solo solo mm-hmm. ndax bu du war a ñoom kat lii nu bëgg a jottale duñ fi mën a toog ba di ko jottale kenn ah, dañ koy denc biir biiri néeg rek xanaa xanaa kon dañuy takk def ay conférence te kon day bu boobaa day metti waaye gis nga tey ji ni mu yombee macha allah mm-hmm. Seyda maa lay sant macha allah di la gërëm di la ñaanal yàlla macha allah yàlla na nga yokk di yëpp ko macha allah jazakallahu xayran suñu technicien salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam technicien ñi leen ñaanal wér gi yaram